Euh, semaine bi le ministre des finances euh, Moustapha Ba dafa boucler euh, la session budgétaire mu boucler la session budgétaire en faisant le bilan en revenant euh, sur l'actif le, le le passif les perspectives et, et tout ñu wax le montant du budget euh, du Sénégal sept mille six cent et quelques milliards mu am des gens comme yow ak ñeneen ñu contester ce ce ce ce chiffre là. quand vous contestez vous savez de quoi vous parlez mais pourquoi ngeen di contester euh, ce ce chiffre là et puis le débat que vous posez da ngeen jàpp ne euh, le montant du service de la dette qui est de l'ordre de mille deux cent et quelques milliards dañ ko war a génne euh, ci li nga xam ne moom mooy les prévisions du du du du budget mais loolu lu bees la fi wala loi bi déedéet xam nga yaay une première réforme xam nga budget c'est une loi wala xamoo ko woon xam nga on te dit projet de loi de finance c'est une loi loi warul nekk inconstitutionnel n'est-ce pas xam nga en France la pratique voudrait que d'ailleurs chaque année ñu dem conseil constitutionnel xool les députés d'ailleurs j'invite les députés à s'interroger sur ça sur la constitutionnalité de la loi de finances qu'ils ont votée loi moo ne xam nga y a eu une première norme communautaire yu 2009 yi dafa ne ces ressources extrabudgétaires la waruñ leen comptabiliser d' accord après ñu ñëw y de eu mais la dernière réforme celle de 2020 elle a été claire sur ça que loolu daf ko cité expressément warul bokk ci budget bi voilà ça a été clair donc aujourd'hui ce ce sujet là est un sujet bu nga xam ne normalement les députés doivent aller devant le Conseil constitutionnel pour voir si la, la loi a été respectée. Parce que c'est une loi organique qui, a, qui porte la, la, réforme de 2020. Elle est fondamentale dans, dans, dans, dans, la, dans le fonctionnement des finances publiques de notre pays. Moom moo asseoir naka lan la ñuy comptabiliser comme recette lan la comptabiliser comme dépense. De la même manière que nga waroon mun les milliards des intérêts de la dette et, et, des commissions, mais de la même manière les emprunts c'est clair kenn du ko weddi moom wax na ko sax nee daf ko def par souci de transparence en fait d'explication dama nekk di dama di bëgg a retrouver euh, li nga xam ne mooy ce ce ce ce ce ce passage la question dafa ne lan moo tax ñu bëgg a rompre une tradition euh, de Diouf de Senghor à à Ablaye en passant par euh, les douze ans de de de Macky Sall euh, mosuñu dissocier le montant du service de la dette du budget global pourquoi ren mu bëgg a nekk un débat j'ai parlé de l'emprunt le montant des emprunts les 1240 milliards concernent l'emprunt d'accord le remboursement du principal n'est pas xam nga li li ngay expliquer mooy déjà moom on a reproché euh, à Khalifa Sall pratique du dëgg Khalifa Sall lan la wax dafa fekkoon ñu koy def voilà. Mhm. moi je peux pas dire à Khalifa Sall que li nga li ngay fekk nit di ko def baaxul boo ko continuer du ma la daan de la même manière yow boo fekkee ay nit di dara bu dee baaxul taxawal ngay ji lu baax nga ne maintenant puisque le budget doit être sincère. xam nga la notion de sincérité dans le budget est importante même dans les projections des recettes là de 687 milliards waroon nañu jox des éléments de calcul di wax ni benn 680 milliards de de recettes supplémentaires mun nañ ko jëlee un ci glissement bi nga xam ne dañ koy calculer entre le taux de croissance du pays d'accord et éventuellement c'est retombé dans les recettes autant douanières que au niveau de la DGID nga calculer ko nga ne maa ngi séntu ni un bon économique et possible wala damay tëgg ay loi ay impôts yu bees wala mais da ngay annoncer benn montant xam nga la sincérité du budget mooy lan gis nga déjà même même xam nga boo fàttalikoo même na en 2016 quand il y a eu la réforme euh, pour sur le référendum yaa ngi fàttaliku xam nga le président de la République a demandé au conseil constitutionnel un avis mais le conseil constitutionnel lui a qu'un exposé des motifs ne doit pas être bavard est-ce que yaa li ma lay wax mooy doo parce que la loi est impersonnelle waroo fa nekk di naan oui président laaj na chantier bi départ na chantier bi bëgg na def lii déedéet parce que la loi est impersonnelle parce que la loi de finances actuelle quand elle dit que l'actuel président ne se représente pa n'est-ce pas donc voilà li mu bëgg etc comme projection mais si un nouveau président vient il peut dire que la loi elle est est-ce que yaa ngi li ma lay wax même dans le fond l'exposé des motifs est problématique là dans la forme waroo fa nekk di tudd regardez bien la décision du conseil constitutionnel en 2016 bi ci doon wax di nga gis ni dafa ne woon bàyyi leen bi tudd en fait des éléments de bilan ou de de, de projection d'un président de la République dans un exposé des motifs la la la loi encadre l'ex. Euh, mais mais Mame Boye après ñoom ñu tuddee ko exposé. Mame Boye des motifs premièrement deuxièmement dama la ne réforme 2020 bi moo gën a am solo la réforme de 2020 dit clairement que yooyu warul bokk donc les 1200 milliards là les 1240 milliards ne doivent pas faire partie du budget. alors